maa ngi nuyu waa Médina TV te ñaan waa Médina yëpp ñu koy déglu di ko seetaan te ci joxe information. donc initiative bu rafet la quand même bu Médina amee foo xam ne mën na fa joxe information di ko ci jël dañu koy rafetlu parce que ñenn ñi dañ daan def rajo communautaire mais lii moo gën a moderne moo gën a xew. yaakaar naa ne bu fekkee ne équilibre na information di joxe des informations juste et vraies dina tax ñëpp sawar ci ñëpp sawar ci dugg ndax man du fu ne laay waxee mais lépp loo xam ne dal na sama xel te li muy joxe lu wér la dinaa ci sawar di joxe information mairie bi.